ñëwaat taxaw ci ONG Jamra sànq yaa ngi wax Cheikh Ahmed Cissé ma ne la dinañ ci ñëwaat ndaxte Cheikh Ahmed ak Cissé ak Jamra seen seen seen ànd tàqalikoo bi ni mu amee Sénégal yi ñu ci bëri yee nañ ci yàbbi tey am na ñu naqarlu kàddu yi nga xam ne mooy insulte yu Cheikh Ahmed daal di yëkkati wante it ci beneen kàddu ba da gis ñu naan ne Jamra eh, dañoo xaw a tu m'excuses du terme damay reprendre rek les mots dañu xaw a fàtte ndaxte it eh, dañu xaw a fàtte dañu xaw a métti du genre que comme nit ñi duñ leen bàyyi ñu firi mine de rien ñu annoncé plainte ba tey sa loolu dem nañ ba crédit crédibilité Jamra am ci ñu naan est-ce que réellement crédibilité bi ndaxte nee nañ ci waa Jamra benn personne morale la gis tout le temps muy sa jëmm ji tonton Mame Makhtar. ci loolu laay jëkk tontu. ah Jamra Makhtar Gueye rek wax xanaa parti yi kuy wax di nga dégg Aminata Mbengue Ndiaye di wax di nga dégg sëñ Mbaye Thiam di wax Ablaye Wilane mooy wax parce qu'il est le chargé de la communication APR kuy wax. Seydou Gueye parce qu'il est chargé de la communication waa Yaxey Jamra aussi kan ngeen bëgg mu wax imam Massamba Diop président exécutif imam Moustapha le vice-président chargé des affaires religieuses kan ngeen bëgg mu wax Adama Niang le vice-président chargé des affaires culturelles et cetera a au moins une dizaine de vice-présidents kan ngeen kan moo war a wax le vice-président chargé de la communication dugal leen ko seen yóor yi lu tax moom moom rek mooy wax est-ce que di ngeen dem ci APR naan lu tax Seydi rek di ngeen ci PS naan lu tax Wilane rek di wax maay wax parce que maa yore communication bi bon loolu féetee na boor waaw léegi nag ñu naan crédibilité mangam biir di loolu ñu ngi ñu koy wax depuis 1985 ba ñu songoo ak franc yi bëggoon xajamal liggéey bu rafet bi fi Cheikh Ahmadou Bamba bay Seydil Hadji Malick Sy Cheikh al Islam Baye Ibrahima ñas kooku c'est une longue histoire waaye song nañu leen yàlla def mu am ñu mel nii ñi ngay wax naan Jamra crédibilité mu ngay wàññeeku ñu xeex ak ñoom ak ndimbalu Baye Seydi Thiaw Laye njaboot Seydina Limaamu maam Abdoulaye Sy Dabakh ak ndimbalu Serigne Abdoul Ahad Mbacké bi nga xam ne bii ba ñuy def suñu tournée dañuy ñëw ba Touba suñu oto paan parce que dañ doon waajal procès bi presque dafa coulé biel sëñ Abdoul Ahad ci gàttal ba ñuy tàggoo ak moom moo ne gis ngeen sama jëwriñ jële te toog ca groupe bële ca fond saal ba te yore kaala gu weex bi wërale ko ci baat bi mu ngi tudde sëriñ Muntaxa Mbàkke Bachir foo leen mooy kii toog tey foo leen toll ci combat bi rek na ngeen ko wax balaa jant soo dinaa ko wax effectivement keroog ba ma sëñ Muntaxa recevoir au mois de décembre maa ngi ko koy wax waaye fàttewu ci dara ndeysaan avec il a une mémoire extraordinaire nee naa ko ba ñuy jógee Touba keroog di continuer suñu tournée yow sëñ Muntaxa yaa jël oto jox ñu muy sa participation ci combat bi contre la loge maçonnique de Dakar yaa jël cinq cent mille francs bon d'essence jox ñu kon loolu ana ñu doon wax naan waaye seen crédibilité dëgg foofu lañ ko jëkkee dëgg ba ñu toogaatee jamono di dox ba ñu war a criminaliser le délit de trafic de drogue moom la ñu Akhenaton mere d'ailleurs ba ñu criminaliser yamba ba léegi mu ngi ñuy saaga rek moom moo xam lu tax alors foofu tamit ñu bari naan mënu leen ko narcotrafiquants yi dañu bari doole Jamra ngi perte crédibilité ñu song dóor léegi euh, euh, euh, amuñu woon accès assemblée nationale parce que Jamra organisation de la société civile la il nous fallait am la voix au chapitre là où se font et se défont les lois Ablaye Wade bii président de la République de l'époque moom moo ñu conseil ne fexe leen ba dugg assemblée ndax nettali ci làmmiñu borom la daqe looloo waral Jamra créé sur les flancs de Jamra une branche politique bu tudd RDS c'est un partie qui existait euh, bien entendu avant l'indépendance góor ko fonde woon ñu daal di ko dekkal euh, muy rassemblement démocratique sénégalais ci fas woowu ci la Abdou Latif Gueye ñu ànd moom def coalition avec def alliance avec la coalition Sopi de Maître Abdoulaye Wade battre campagne ba dugg assemblée criminaliser yamba bi ñuy bayee fii criminalisé euh, euh, cannabis bi jóge Mali Jamra moo criminalisé lopito bi jógee Nigéria Jamra moo criminalisé brown bi jógee Ghana ak tamit surtout cocaïne bi nga xam ne activistes yi saaga euh, kilifa diine yi moom la ñuy mux yi ba seen yoor bi wëlbatiku ñuy wax lu leen neex boo yëpp ñu criminalisé ko léegi dootul ay ku ñu jàpp ay 3 mois 6 mois déedéet kuñ si jàpp muy yamba muy cannabis ak bu mu mën a doon 10 la assorti d'une amende qui c'est le triple de la valeur de la drogue saisie pour euh, naq sa xandang yi naan est-ce que du projet de loi état du projet de loi projet de loi mooy lu jóge ci exécutif bi conseil de ministres qui c'est la proposition individuelle de loi d'un député ki s'appelle Abdou Latif Gueye fondateur de l'ONG islamique Jamra ñun ñoo ko fo dugal député yi jàppale ñu criminaliser ko moo tax député yu bari par honnêteté morale di ko surnommer la loi s'appelle loi 2007-31 du 30 novembre 2007 waaye dañ ko sargale Jamra tuddee ko la loi Latif Gueye foofu tamit am na ñu doon wax naan vous ne réussirez pas vous allez perdre votre crédibilité ma ne kon de yàlla nañu yàgg di perdre suñu crédibilité. ba ñu demee damay survoler beaucoup de choses ba ñu demee ba 2016 mu am fi benn écrivaine euh, buy bàkkoo ne jullit la loo tax euh, umma bi nekk en danger parce que jamono Salman Rushdie en 88. dañ doon ay noonu l'islam ñu doon attaqué umma bi à partir de l'extérieur euh, kii nu mu tuddati euh, Sam Bézil bi fi defoon un court métrage bi ñàkkee teggin sang bu teddu Seydina Ahmed bay qualifier l'islam de cancer social dafa attaqué umma bi à partir de l'extérieur mais xeex bi li tax mu metti léegi noonu umma bi ñu ngi ci biir umma bi nekk naa ni yàlla day taaxuraan yàlla day lépp ñoo ñu ngi ci biir umma bi alors Hela Wardibo moom tamit elle prétend être musulmane daal di defar benn livre bu mu tudde les derniers jours du prophète yàkka ci sang bu tedd bi loo xam ne teggin mayul ma di ko répété fii ñun ñu jóg pour xeex ko pour livre bi bañ fi dugg gars yi naan vous allez perdre votre crédibilité vous ne réussirez pas ñu daal di jóg jël suñu matuwaay def suñu tournée de sensibilisation clôturée par une conférence de presse conférence de presse bi dafa jeex rek le premier ministre que je remercie au passage Mohamed Boun Abdallah Dionne moo ne ma Guèye ma dégg naa coow li euh, président Macky Sall new fii mu nga Casablanca pour se reposer euh, des fatigues du référendum du 20 mars 2016 dégg na coow li lii ko seetaan mën na nekk source de trouble à l'ordre public alors mu ne woon naa la laaj yow mi pose problème bi yan matuwaay la ñu mën a jël pour affaire bi ñu bañ ko tasaare ci dëkk bi parce que nit ki mën nga bañ euh, gëm la keneen gëm mais kenn amul droit ñëw di insulter la fois des autres c' le premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne qui parle. ma ko waa maa ngi lay remercier waaye dama bëggoon d' abord ngeen xam ni ki nga xam ne moom mettre la puce à l'oreille à Jamra c' est Abdou Mbaye sa prédécesseur premier ministre. alors euh, moo ko jëkk a gis ma ne ko nag ñun balaa ñu attaqué dañuy vérifier alors nous avons vérifié sur trois cent et quelques pages vingt pages rek mënuñu ko passé ndax xol bu jeex. am na kenn ci ñun da doon jooy xatit ndax mosuñu xalaat nit ku soxor mën nga ñàkk gëm l'islam ak yonentam waaye dem bay sos dem bay def de la médisance satanique euh, boobu ëpp na alors bref mu ne ma danaa la boole ak Mbagnick njaay le ministre de la culture pendant ce temps gaa ngi nekk ci réseau yi rek di wax na eh Jamra dina perd kër bi di de moom mën na fexe ba interdire de vente cet ouvrage la ma ne waaw on va voir alors Mbagnick Ndiaye woo ma ne ma dama jot ndigal ci premier ministre pour nga wax ñu parce que je suis le ministre de tutelle en tant que ministre de la culture nga wax ñu yan librairie ñoo koy jaay waaw ma ne ko bindal librairie quatre vingt Jules Ferry ma ne ko am na beneen librairie bu nekk euh, Radisson am na beneen bu nekk euh, Porte Mermoz mu ne ma waa Claire Afrique ma ne ko déet kooku loo leen leen wax tooñ leen parce que kooku dafa nekk sous l'autorité morale di clergé catholique de l'église catholique sénégalaise seen librairie bi du ñu nangu mu kenn ñëw di fa jaay livre buy attaqué diine jàmbur mu ne ma kon Clara yi bokk ci ma ne ko baaree ko moom bokk ci mu ne waa je te reviens après parce que j'ai ici à mes le commissaire Aladji Cheikh Dramé qui était à l'époque le commissaire de la sûreté urbaine waaye léegi monté na grade c'est le commissaire central de Dakar on va te revenir après ñu toog ba booru timis mbañik woo ma ma maa ngi jëm si premier ministre premier ma ne waaw noo leen mujjee mu ne ah la chasse a été fructueuse yi nga ñu wax yëpp ba ñu fa demee la nga ñu wax gis nañ ko alors effectivement avant muy tëdd premier ministre woowaat na ne ma ah Jamra félicitation ma ne kaa ah, mu ne ministre de la culture Mbagnick Ndiaye ànd naag le commissaire Alhaji Cheikh Dramé saisir nañu trois cent soixante quinze ouvrages ëllëg si rek ma def communiqué maanaam waaw ana ñu doon wax naan Jamra du mënul ci lii dara il va perdre sa crédibilité ma ne kon waay yéen seen ñaan nangu na de ay eh waay yàlla na Jamra yàgg perdre crédibilité après nag premier ministre woowaat ma ne ma euh, ouvrage yaa ngi nii léegi qu'est-ce qu'on en fait ma ne ko ah, yéenay état nous on a joué que notre rôle de lanceur d'alerte mu ne non dama lay laaj rek sa xalaat ma ne ko ah, suma xalaat daal mooy comme que daf ci tooñ di yàq l'islam lu mel ni xamee di xotti war ma alquran ak di ñàkkee teggin di def acte de blasphème euh, et de sacrilage à l'égard du messager d'Allah alors mbalit moomu ma effectivement livre buy euh, ñàkkee teggin noonu diine ji mënuma ne livre la ma ne ko mbalit moomu da ngeen koy dajalewaat def loolu tubaab di wax retour à l'envoyeur comme que éditeur parisien bi Albin Michel moo ko fi indi ngeen delloo ko ko premier ministre ne ma non non loolu day yomb ma ne ko lu tax mu ne yéen Jamra du chaque 26 juin qui est décrété par l'Organisation des Nations Unies journée mondiale de lutte contre la drogue du da ngeen di dem en partenariat avec la police fële ca Mamel police daal di génne li mu saisir ci année bi yëpp ci yamba ci loppitoo ci cannabis ci brown ci tout ñu sotti ci essence taal ko ma ne ko waaw ne bii itam noonu la ñuy def dañ koy yóbbu mamel dajale ko ba mu def jal ñu sotti ci essence taal ko ma ne ko ah man de xaw moo ne Macky Sall daf ñu jagleel un premier ministre intégriste mu daal di kaf quoi ne ma ah mais kii sama turandoo la attaqué ma ne ko ah mooy sa turandoo mu ne waaw waaw man aw ma ay turandoo nijaay bu tudd Mohamed man moom lañ ma tuddee moom mu ngi tudd Mohamed Ibn Abdallah Mohamed le fils d'Abdallah man ñi tuddee ma Mohamed Boun Abdallah ce qui veut dire exactement la même chose alors kon booba bañ koy song sa gars yi ñu ngi naan lii Jamra mënu ci dara dañ yàq seen crédibilité am nañ ci ndam kon crédibilité bi yàlla nañ ko yàgg a ñàkk. et je termine par un seul cas am na 40 liggéeykat yi ñu dàq fii UCG. muy euh, euh, société bi toppatoo mbirum an mbalit yi moo fi remplacé euh, Sowadib alors ndekete ñoom dañu def abandon de poste la presse en a parlé ma liir benn article benn waaye naan Jamra dégg naa liggéeykat yi seet si nañ ko pour solliciter sa médiation waaye Jamra bu mu dugg ci lii ñi faute lourde la ñu def Jamra bu ci duggee dana perdre sa crédibilité <laughs> ma daa di woo Mass Thiam le tour laa leen jox directeur général de UCG ki leen dàq maa ngi lay remercier bu baax mas Thiam c'est une longue histoire mu dalal ma ñu waxtaan waxtaan wu yow ma ne ko sanga bu tedd bi Seydina Ahmed dafa ne sa moroomu jullit buñ ko tooñee war nga ko jàppale bu tooñee itam war nga ko jàppale ma ne ko ah buñ ko tooñee nga jàppale ko loolu xel mën na ko dégg waaye bu tooñee sanga bu dee ne bu tooñee da nga koy téye ci loxo ñëw ba ci ki mu tooñ nga ne ko yaa tooñ ma ne ko kon loolu laa def ñu ngi nii di ma dégg boobu 40 liggéeykat yi ñu ngi ci euh, audience bi ma ne ko ñoom ñoo tooñ kon Jamra ñëwul pour revendiquer comme nu l'avons fait dans d'autres entreprises dañuy ñëw ñaan la njëkk rawatina nous sommes à deux ou trois semaines de la tabaski ci gàttal non seulement réintégré na ñooñu ñu euh, radié woon waaye cerise sur le gâteau fay na leen weer wi ñu toog te liggéey ko donte liggéeyuñu ko fay nañ leen ma ne waaw ana crédibilité bi mu ngi fi ba tey wala dem na <laughs> alors kon nag euh, loolu la Jamra dëkke kon na ngeen yàgg di ñu ngeen di ñaan ngeen yàgg di ñuy ñaanal ñu perte crédibilité parce que gis naa saa waleen ko ñaanee rek yëf yi jolli ndam yi yokk alors ndam laa ngi continuer fan yi dinaa leen wo conférence de presse sur le dossier des 93 veuves des anciens combattants de la guerre du Golfe ñooñu tam seen i borom kër dee ci toolu xare ñu di leen dawloo te indemnisation yi Nations Unies joxe ñëw na état mu ngi ko denc te joxu leen ko. séviroon naa ci président Macky Sall mu boole ak premier ministre premier boole ma avec le général Amadou Anta Gueye dans le cadre d'une commission euh, militaire d'enquête il était assisté du colonel Abdoulaye Ndiaye de la DIRPA liggéey nañ ci ba jël nañ yëpp joxaat ko premier mu jox ko président de la république dossier bi avancé na alors te am naa yaakaar ne dinañu rétablir les 93 veuves dans leur droit te su am naa yaakaar ne crédibilité Jamra dina gën a wàññeeku. <laughs> ba tey ci crédibilité boobu joxe nga joxe nga ci exemple. ñun dañu bokk ci joxe nga ci exemple. waaw. où sont les les les les 145 migrants de retour de Dubaï balaa may wax euh, kii sax affaire euh, Dubaï. où sont les cent trente cinq familles yii ñu expulsé de la zone de captage quartier boobu am tur wu ñaaw bi ñu di ko wax quartier euh, euh, kii cité imbécile kan la ñu woo ñoo la gën a xam ne y a trois cent cinquante leaders de parti dans ce pays waaye jàmm dañuy jéggi jéggi jéggi ñëw ba ci Jamra fii soxna Nogoy Tine mooy seen porte parole man maa fa dem benn leader de parti tegu fa tànk Jamra fa dem assister leen continuer ci suñu biir yëkkati une certaine somme jox leen pour ñu mën a jënd de médicaments pour ñi nga xam ne dañ ne woon ci wéradi ba pare ma woo le préfet de Dakar Mor Talla Tine waxtaan nañ ci mënuma révéler fii lañ ci jote waxtaan pour ñu mën leen a suturaal kon nag crédibilité bi tamit gën na wàccaat rek <laughs> léegi les cent quarante cinq euh, migrants qui ont été escroqués par un faux marabout sëñ Bassirou Niang Jamra porté na ko plainte au niveau du parquet de Dubaï porté nañ ko plainte au niveau de la dikk alors ñoom ñu takk Dubaï ndax waa ji dafa leen promettre ne danaa leen yóbbu non seulement la leen yóbbu mais boo leen eggee dinaa leen jox liggéey ñëpp gëm ko pour un forfait de 4 millions 500 moom ngaa convoyé na leen de Dakar à Dubaï waaye naka la ñu egg Dubaï rek mu ne wëlbati bàyyi leen ñoom ñu nekk fa avec le peu qui leur ci argent de poche di jënd ay sandwich ak shawarma ak yooyu mais ça ne peut continuer ñu dem ba amatuñu lu ñu lekk ba bu lekk jotee ñi am kàttan dañuy dem ca marché ba bu ñu gisee jongoma naar yi def seen dugg ba noppi bëgg ku leen yenul ba si seen oto wala ku leen yenul ba si seen kër ñu daal di ñëw am ci dara ñi néew kàttan nag dañuy dem université bu étudiant naar yi lekkee ba noppi balaa planton yi ñëw ramasser assiette yi ñu prox ndool la dem di ñëddaatu euh, assiette yi foo natt troxtange ga ñu nekkee woon rek foo ko natt weesu na ko ñu dëkkoon ci yenn centre d'hébergement yi ñu dàqale ndax amatuñu lu ñu fay ñuy fanaan ci mbedd mi ak ci gaar man musuma dem du xaw xawma fa kenn aw ma fa xarit lu tax ñoom ñu jël seen téléphone di wër sur 17 millions d'habitants du Sénégal di wër di wër ba am numéro Jamra woo ma lu tax ñu def loolu lu ma ci mën crédibilité la wala wala manque de crédibilité la alors yàlla dogal nag ma def fii conférence de presse yéen yéen euh, Sénégal ñu bari ñëwoon nañ ma alerté Macky Sall dégg ko ñaanu ko audience moo woo ne ma ah, ah lii nga wax day tiis na lool de mosuma imaginer ne que sénégalais dana iñaane moroomu sénégalais ba teg ko métti bu egg fii ma ne ko monsieur le président li ma jot a wax toqantal la par rapport ak li ma téye te waxuma ko par sutura Macky Sall ne ma daal kon bu ñu sañoon nga ñëw ma yaa ñu yaatal parce que je suis le président de tous les Sénégalais xëy na bu ma ko yëgul woon mais comme que xës ba yëg ko foog ma am ci taxawaay. je résume alors mu recevoir ma la 9 mai boole ma avec euh, le ministre des Sénégalais de l'extérieur de l'époque Moïse Sarr sur 54 euh, sur 53 yi jëkk a feeñu Jamra parce que ñi si des ils sont venus après léegi ñëw nañ ba ay gën a 145 53 yi. si taxawaayu Jamra ak médiation Jamra ak manque de crédibilité Jamra état rapatrié ci 34. waaw 34 la état rapatrié Jamra ko dox ci manque de crédibilité am <laughs> ba noppi euh, mu des 19. 19 yi lu tax kii euh, mu kii mu xaw a tàggatémbe c'est parce qu'ils sont en prison waaye nag defuñu ay déliants jaayuñu yàmbaa defuñu yu bon waaye ils ont commis l'imprudence comme que sëñ Bassirou Niang bi leen jublan yób yamul ci yóbbu ku nekk 4 millions 500 waaye defa yób sànq seen passeport alors ñu xiif war a jënd lekk ak yooyu xam naa tombé contrôle de police amuñu kayit ñu jàppaleen Macky Sall ne ma loolu affaire affaire étrangère la yow toppatool ñi ñi ñi euh, ñi nga xam ne rapatrié nañ alors ñooñu rapatrié nañ leen ba noppi mu am ñeneen ñoo xam ne il faut le reconnaître seen i parents ñoo débrouillé cotisé ba ñu ñëw ils sont 145 bi yoon Macky Sall woowu ma man maa ko woo ma ne ko ñëpp ñëw nañu dañu waxante woon ne bu ñu ñëwee naa la rendre compte mu ne ma nekkuma pale parce que je dois voyager waaye ce soir mën nga ñëw kër ga ma ne ko foofu xaw ma fa de mu ne ma Mermoz daal di ma ko tegtal ma daadi dem ba ñu demee ñu toog ma ne ko d'abord damay jëfee li ñu lislaam sant suñu borom nee na man lam yaskuri naas lam yaskuri laa nee na yow jaam bi bu dee da nga may gërëm soxlaawuma sa ngërëm bu fekkee ngërëm li jiitaloo ci jëmm ji nga xam ne li tax nga di ma gërëm ci moom laa ko jaarale comme que sa loxo la ko yàlla jaarale président ñu ngi léegi remercier ma ne ko waaye nag Jamra nee na buy sañoon comme que da nga def lu baax nga def ko mu mat rek xam mu xaw ma tooñ nag nee ma ah yéen Jamra da ngeen compliqué yéen def ngeen conférence de presse def ay ay sorties dans les réseaux sociaux def tout un boucan ba rapatrier nañu leen maa la boole ak Moïse Sarr des affaires étrangères waa léegi lu deseti waaw ma ne ko dëgg la da nga leen jëlee ca ndóol ga ñu nekkoon foofu ca Dubaï toroxoon nañ fa lool lekk sax problème woon ci ñoom waxatuma la ak dëkkuwaay ndax dàqoon nañ leen ci centre d'hébergement yi donc jëlee nga leen ci ndóol ga ñu ne woon indi leen waat fii waaye fii de dañ fi ñëwaat fekkaat fi ndóol bi nga xam ne moom la doon daw ba mu waral ñu gàddaay dem Dubaï kon la ñu wuti woon Dubaï bu ñu ko fii duñ fi jóge ma ne kon li ñu bëgg a foofu mooy jamono ngi lay ñaan ginnaaw rapatrier nga leen état bu mu leen rapatrier rek yem ci. na leen gunge pour utal leen des activités génératrices de revenus ci la ma boole nag avec le directeur de l'ONFP office national de formation professionnelle qui dépend du ministère de la formation professionnelle ku ñuy wax le docteur Soumaré moom la Souleymane Soumaré moom laa tàmbali woon kooku il a été appelé à d'autres fonctions après mu def passation de service ak euh, Mounirou li loola waraloon nag yéen ñëpp presse bi invité woon naa leen ñëwoon ngeen parce que affaire bi keroog amul benn télé bu ko génnul ba RTS qui est très sax ci <laughs> couvrir suñuy manifestation ñëwoon na euh, TFM Walfadjri et cetera 2S presse en ligne bi ñëpp a ñëw fii ci résidence Kër Mamoun ci VDN pendant trois heures de temps en partenariat avec le maire que je salue au passage Djibril fay de la commune de Bargny en partenariat avec le ministre de l'agriculture ñi daal di procéder a un atelier d'identification des besoins en formation parce que nit ki balaa nga koy utal financement comme ni ko président waxee keroog si sama jàkkaarloo ak moom dafa war a am y a un préalable ma ne ko ban préalable mu ne na am qualification alors nag bañ leen dispatché ñi tànn nañ électricité ñi plomberie euh, euh, waaw waaw ñii euh, kii nu mu tuddati euh, conduite d'engin de BTP jigéen ñi parce que y avait des victimes femmes qui ont été escroquées jigéen ñi am na ñu tànn euh, élevage de poulet ñi tànn couture ñi tànn coiffure donc bañ leen dispatché maintenant office national de formation professionnelle dafa signer partenariat ak des structures de formation ba formation yi démarré na formation nag de courte durée lay doon des formations qualifiantes ay 3 mois 4 mois bu ñu paree ONFP jox leen attestation ak benn euh, demande suñu paree nag ñoom ñu dem ñu orienter leen vers des structures de financement lu demee ni la DER délégation à l'entrepreneuriat rapide la la euh, kii le FONGIP et ANPEJ ak yeneen comme ça nag ñu jox leen ay financement ñu mën a taxawal des activités génératrices de revenus dem ba mën sax di créer des emplois kon nag solution boobu Jamra ko indi c'est la première fois de migrants de retour yu échoué seen migration ñëw état jël leen en charge daawul demee noonu looloo waral nag je répète ici que nañu bàyyi ñiy def xutba ci jàkk yi parce que dégg naa ko rek bu yàggul di diaboliser xale yi maa dégg benn imam bu naan waaw gis ngeen ñii dee dee ni mu bari ak ni mu ñaawee ci géej gi ah te yow gisoon nga ko teg ci seen bët sa terewul da nga toogaat ak diir daal di jog songewaat ne da dellu ci géej ga boo ca deewee nag charia dana la atte atte ku xaru ça ne sert rien ndax imam bi ba mu waxee loolu dans la même semaine gaal googu euh, saaraan noonu foo ci foofu ca goxu mbàcc fa la dépare ba mujjee saaraan booru Cap Vert y a plus d'une cinquantaine de morts kon bu doon xeetu wax yooyu dana jariñ dara yooyu du am nañu bàyyi di diaboliser xale yi xale yi ñàkkuñu jom xale yi jom moo tax ñu takku bëgg dem bitim réew pour uti lu ñu terale seen i waajur ak seen njaboot ku mel noonu bu demee ba échoué bu dellu siwaate da nga koy naan am jàppal ci lii mais bul ko xas kon nag Jamra récupéré na cent quarante cinq migrants de retour de Dubaï te bu ñu paree ci loolu toujours ci manque de crédibilité bi dinañu fexe ubbi un dossier pour les migrants de retour d'Espagne les migrants de retour du Maroc et les migrants de retour de Nicaragua waaw Jamra Kott ko fi def bon léegi nag on ouvre la mais ci wàllu collaboration moo tax ñu ngi remercier le ministère de l'agriculture ñëw na le maire de Bargny parce que sa sa commune a été très impactée par le fléau de l'immigration clandestine ñëw na ci partenariat bi euh, il d'autres partenaires yoo xam ne dina euh, dinañu wax ak ñoom voilà pour nu mu gën a yaatoo rek ñu mën a may xale yi possibilité de gagner la leur vie honnêtement chez eux voilà loolu laa doon tontu pour ñu naan waa Jamra moom mbaadu du perdre crédibilité am kon dama ne dolli leen ñaan rek crédibilité bi ñu gën di ko perdre rek waaw au au plus grand bonheur des des populations sénégalaises